Sunuker FM xibaar yi suñuy kër FM. jaajëfal leen rek ci teewlu beeg kóolute bi ci rajo sunu kër FM eh, ñaari waxtu ci bëccëg daal nay jot sënkam ci tuuri suñu biir studio kàddu gi di bàyyeekoo fii ci cœur de ville bu Kaolack dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi. la ca fës rek bokk na ci mbirum politik ak tukki nemmeeku gi nga xamante ne ni kii di euh, tête de liste nationale bu coalition Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré doon ko amal ci xolum réew bi jàpp Nioro di rip euh, ba fii ci kawlax nangaan ki démb rek ñu doon ko amal fii di ko tertu moom Aminata Touré dinañ am yaatal gi ci biir xibaar yi. ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk lay doon di xibaar biti réew bu ñu ko sofee ci li mel ñu daal di këmmal suñ jotaayu digg xibaar yi ci suñuy kër FM asalaamaaleykum beneen yoon ci xibaar yi digg bëccëg gi dañu koy doore ak tënku xibaar gi jëm ci sport ak édition CAF Awards ba nga xam ne rek doon nañ ko amal ni ki démb fële ca diwaanu raba ca Maroc nga xam ne rek waa Sénégal daal di nañ ci gàddu ay raay yu bëree bëri bokk na ci rek ballon door bi nga xam ne daal di nañu koy jébbal euh, gonek bàmbaale gi di Sadio Mané waaye itam kii di Aliou Cissé daal di jëlaate ñaareel yoon li di coach national fii ci diwaanu Afrique bokk na ci kii di ah, Pape Ousmane Sakho ak Pape Matar ñoom ñi nga xam ne rek ñoo nekk meilleur jeune joueur bu Afrique file ci continent bi mu nekkoon rek édition bi nga xamante ne doon nañ ko amal rekk foofee ca Rabat ca diwaanu Maroc. suñuy Kër FM. comme ni ma leen ko junjee woon rek ci bopp xibaar yi ki nga xam ne rek moo di Abdoulaye Gueye daal di rek ngàlloo lépp lu jëm ci communication fële ca bu duwaanu Kaolack moom nag daal di nay indi ay leeral jëmale ko ci tuuma yi nga xam ne rek daal di nañ koy teg ci ndodd ko maire bu diwaanu Kaolack di Serigne Boub ne rek dafa daal di santaane rek ñu daal di voteel waa coalition Benno Bokk Yaakaar file ci diwaanu dëkk Mbossé Kumba Jigéen ñu teewlu Abdoulaye Gueye ci leeral yi. boobale élément dafa mel ne yembul mu mel ne rek kii di euh, Abdoulaye Gueye mi nga xam ne rek moo ngàlloo lépp lu jëm ci wàllum communication ci mairie bu duwaanu Kaolack daal dinay indi ay leeral ci tuuma yi nga xamante ne nii rek daal dinañu koy ngàll ci ndoddu euh, maire bu diwaanu Kaolack di Serigne Mboup ne dafa rek joxe ndigal ñu daal di voteel benn bokk yaakaar ci élection législative yi ñu dëgmal niki fanweeri fan ak benn ci weeru juillet gi ñu nekk Abdoulaye Gueye ñu teewlu ko. di xamal ni tey jii nii du ñu ne presse parce que presse bi ñu ngi jàppale monsieur le maire ñu ngi koy accompagner. mais am na ci ñoo xam ni tey ñu ngi utiliser presse bi wala ñu ngi leen di utiliser ñuy utiliser presse bi pour mën a yàqal ay nit ñoo xam ne nii tey jii nii seen du seen liggéey yëpp mu ngi ci biir. ndax umpu leen ni leen ci ñaari fan yii ak ci ñetti fan yi am na wax yu bëri yoo xam ni nit ñaa ngi ko ciy wax jëmale ko ci président Serigne Mboup jëmale ko ci ànd nawle ànd liggéey te loolu lépp doon dudul ay nit ñoo xam ni seen i intérêt crypto personnel lañ ay nit nekk ci seen ginnaaw di leen manipuler ñuy génne ay yenn yoo xam ni vraiment doon la ñu ñaaw ñi koy def xam nañ leen ñi leen koy def loo xam nañ leen ba tey jii may wax ak yéen suñu génnee léegi dinaa leen jox ay preuve palpable yoo xam ni lu ñu teg suñu loxo la ni article bi nii ak nii la juddoo kii ko def lii la ko fay dinañ ko defee nii di leen xamal ne leen bu dul loolu it nag que ñi ko def yàgg nañoo bëgg dara ci président Serigne mais c'est comme président Serigne dafa am un entourage averti am une de communication boo xam ne bu taxaw la li nga xam ni lépp loo xam ne war naa mën a ñëw ci ñoom ci moom nit ñi dañ koy am di leen yëgal ne leen kooku ki def article liñ ci xam ak liñ ci tee bari na te incha allahu rek bu ñu jógee fii dinañ publier loo xam ne wala ñu waxante moom leen loo xam ni su arrêté wul li muy def nii waaru ci loolu sutura la nag moo tax ñu bañ a àgg foofu ak moom mais je crois bien que li gën a yéexal sax conférence de presse bi tey gis ngeen moom mu dugg ci oto président Serigne ñu toog fa lu yàgg di wax kon nag loolu noonu buñ ci amee ci wàllu sutura dox ko ci wàllu yoon ñu ngi demander personne mal intentionnée boobu noonu bi utiliser presse te moom ñu koy utiliser mu arrêté effectivement ces basement la mais nag du du tàq dara su génnee lépp loo xam jëm na ci wàllu yàq ñu jox leen ko yi leen xamal mu nekkoon rek Abdoulaye Gueye mi nga xam ne rek moo ngaal lool lépp lu jëm ci communication ci wàllu ko mairie bu diwaanu Kaolack ci noonee la ñuy dem fële ca diwaanu Nioro ak tournée bi nga xamante ne nii kii di Aminata toure mu ngi ko doon amal ni ki démb rek foofee ca diwaanu Nioro di rip lépp rek jëm ci campagne électorale bi nga xamante ne nii moom la ñu jagle élection législative yu ñu dëgmal moom nag Aminata Touré gannaaw ba mu fa teewee doon na delloo kàddu ngërëm ak cant ki nga xam ne rek moo nekkoon njiital pencum ndawu réew Amady Moustapha Niass ne rek nit ku diñ nit ku dëggu moom sax daal di koy eh, delloo njukkal tamit ci liggéey bi nga xamante ne nii rek amal na ko di liggéey bu rafet a rafet ci biir gouvernement bu Sénégal moom Aminata Touré ñu teewlu yaatal gi ci reportage bu Cheikh Tidiane Dansokho ci ab tournée waral lu jëm ci wàllu élection législative yi Aminata Touré nekk ci bopp coalition Benno Bokk Yaakaar daal yëkkati ay kàddu di jaajëfal ki nga xamante ne mooy Moustapha Niass foofee ca Nioro. dañuy rendre un vibrant hommage à celui qui a été la personnalité historique du Sine Saloum mooy le président Moustapha Niass monsieur le président Niass dañuy lay ñaanal yàlla dundal lu yàgg te nga wër ñu ngi lay remercier nous tous de la coalition Benno Bokk Yaakaar. ba tey moom Aminata Touré daal di dikk ndam lu rëy ci coalition Benno Bokk Yaakaar foofee ca département. bu ñooroo mbokk yi kon le juillet bu ko kenn tayal bu ñu ne gaje nañ ba pare bu ñu naagu xam nañ ne fii score bi dina jege waaye li ñu ci bëgg mooy un taux de participation ndax xale yi ku nekk seet sa carte fi mu ne jigéen ñi aussi ngeen wër seen carte xam fan la ne bu ko defee ñu teel a ji fii à Nioro à ñu ne wiiw Benno Bokk Yaakaar gagné à ci loolee sax Aliou Mané Dji Ba ak. ak ñi ñu àndal daal nañu réussir li nga xamante ne mooy mobilisation bi ak organisation meeting foofu ci département bu Nioro waral sax mu daal di am ak mbégte ci militant ak responsable politique yi nga xamante ne daal di nañ koy réserver ab tertu bu mucc ayib waral sax moom Aminata Touré daal di yëkkati ay kàddu di rafetlu ak bi nga xam ne daal di nañ koy réserver waaye yemul ci loolu mi ngi rappeler élection législative yi am solo gi nga xamante am na président de la république bi nga xam ne sax élection yooyu jàpp nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu nekk gannaaw Nioro nag dañuy ànd ak moom dellu si file ci diwaanu Kaolack moom Aminata Touré ba tey démb rek dañu ko doon teertu file ca stade Lamine Gueye bu diwaanu kawlax waaye nag ñi nga xam ne ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar seen ay militant dañu faa indi woon ay jàmmaarloo si seen diggante ba mu daal di sax mujjee xañ ki nga xam ne moo di seen tête de liste nationale de a jël kàddu ca mbooloo ma ñu teewlu yaatal gi wala sax ñu déglu ki nga xam ne rek moo di Aminata Touré ci ay propos. yàlla may ñu nawet bu barkeel macha allah wuy si nañu tey euh, moo tax euh, gis ngeen ni mbir mi demee ñi ngi ci ay tik-tik ñi ci ay caraax euh, waaye fii nag mooy Saloum Saloum nag dañoo bëgg a président de la république te defe naa maa ngi koy wax ci turu candidat yi fi ne yëpp muy ma sœur madame le ministre Mariama Sarr muy madame le maire Aïssatou Ndiaye muy Pape Demba Biteye monsieur le muy Bokar Diallo bi fi nekk defe naa ne Adji Mbergane l'honorable Amy Mbergane Ahmed Benjeloun Ndeye Sakho waa Saloum nag defe naa ne euh, defe naa ne président quand même beral nañu loxo ci liste ñu ko ciy sant ñu ngi ko ciy sant bu baax di ko wax ne fii ci Saloum dinañu def lu ñu mën ak lu ñu mënul bu jox ko nekk une éclatante victoire loolu moom mën nañ ko ko wax bu ko defee Saloum bokk ci ñiy gën fal le président de la République fii ni nu fi gis aussi mooy sunu responsable yëpp ànd nañu gën a ànd renforcer l'unité ku ne liggéeyal sa morom pour que président am fi ndam parce président xam nañu lu mu liggéey ci réew mi xam nañu li mu liggéey fii ci Saloum ak li mu liggéeyal Kaolack xam ngeen ne autoroute baa ngi yegsi loolu rek war naa tax ñu jox une large majorité à l' assemblée nationale. buy yegsee di nga mën a xëy fii di liggéey Kaolack di ñëwaat loolu it euh, ak boole koog nag tous les programmes yi nga xam ne moom la amal réew mi te la le département de Kaolack gis ci boppam tous les maires sont là l' ensemble des actuellement là salon de dirais comme une seule femme, prêt à mouiller le mu nekkoon Aminata Touré waaye ba tey dañuy des ci boobule ponk ak ndajeek uh, waa coalition benn bokk yaakaar bi nga xam ne rek ñu ngi ko doon amal fépp ci biir réew mi gannaaw rek ba ñu jaaree uh, Touba ñooro uh, jàpp Tambacounda Kolda ba Ziguinchor daal di mujjee si sax niki démb bu nekkoon fukkeelu bëccëg jëm ci boobule tukki ki nemmeeku waaye naka lañu ca seetlu moo di dañoo am ab wuute ci seen tàccandu bi nga xam ne ñu ngi ko doon tàccandu seen tête de liste nationale di Kaolack ak yeneen euh, gox yi nga xamante ne nii demoon na fa dinañ am jàngat gi ak euh, ki nga xamante ne nii moo di Bounama Ndour ñu dalal ko ci zone centre fii ci diwaanu Kaolack waaye nag kenn natablewul rek li nga xamante ni moom moo di joxante ginnaaw gu ay leader yu benn Bokk Yaakaar nekkee ci mu dem ci diwaanu Touba jaar ca Nioro di Rip Ranérou Louga Ndar Géej Matam Tambacounda Kolda ba ci Sikicoor foofu sax la rek di jeexalee fukki fan ak benneelub campagne am électorale ci foofee sax ñu nemmeeku ay différents leaders politiques yu coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xamante ne daldi nañ ko dal comme ni ñuy teeroo buur moom ku ci nekk nag di ko xamal ne ci ngoonub fanweeri fan ak benn ci weerub sulyet atum 2022 coalition benn Bokk Yaakaar dina jël ndam li loolee moom diwaanu Kaolack ci ndoltar gi sax lépp daldi woon na jaar yoon ci ay simili sax la mbir mi soppeeku li ko waral moo di rekk ak organisation bu jaarul yoon xeex doorante ay pancart loolee sax moom moo jaxasee militant yi gannaaw si sax ku ci nekk bëgg fësal sa nataalu responsable ba rek jàppante yi tàmbali agent de sécurité yi sax bàyyeekoo ci leader politique yi dal dinañ ne rek wasaare ci estade Lamine Gueye bu Kaolack waaye nag mbooloo mi tax na mënuñ ci ñoom dara leneen li ci dolleeku moo di taw gi nga xamante ni moom lañu nemmeeku nekke ni démb ci ngoon fii ci dëkk bu Mbossé Kumba jigéen jaxasoo yi li ni mel a tax ay militant yu bëri dal di nag gedd stade Lamine Gueye bu Kaolack moom Mimi Touré bi mu yegsee sax ci meeting bi noonee rek la jàppante yi dal di tàmbaliwaat Mimi jël kàddu gi ngir rek wax ak askanub kawlak ci ay jafe-jafe yu doy waar kenn sax mënul dégg lu Mimi Touré di wax li ko waral militant yi bàyyeekoo ci gox-goxaat yi fekk si seeni leader politique yi ku ci nekk rekk mu ngi yuuxu turub lideram ngir wone boppam foofee la mbir mi meeting bu coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci dëkk bu Kaolack ca stade Lamine Gueye jaajëfal ko moom bu Birame Ndour ci boobule jàngat bu am solo ci boobule ponk sax la ñuy daal di jaaree dem ci eh, ñaareelu xaaji xibaar yi ay simili ñëw lay doon. ñu am mbégte daal di koy dalal ci biir studio sunu kër FM mu daal di ñuy indi li gën a yaatu ci eh, xibaar yi biti réew yi moom Absatou Dieng yu naa la. Euh, fay naa la Rokhaya Sall ana moo gën a fës ci xibaaru biti réew yi. waaw Rokhaya am mbégte lool feggoog yéen ci xibaaru biti réew yi des koy doore ak réewum Mali nga xamante ne dañ fa nemmeeku ay congo ca dëkk boobe dëkk boobee di euh, Kati nekk ci wetu Bamako am ñu seen lu toll ci ñaari hélicoptère ci jaww ji ci ay euh, booru juróomi waxtu ci fajar yemook aljuma bi di ñaari fukk ak juróom ñaari fukk ak. ñaari fan ci weeru juillet euh, bi euh, lañu nemmeeku yooyu le congo ci ab base militaire bu euh, féete ca Kati bu ñu sukkandikoo ci ay cd congo bu njëkk bi ci ay booru 5 heures 17 la am ñu toftal ci fukki si fukki simili si la beneen congo bi am ci ay la am ba ba pare ak ay euh, fetal euh, yu euh, taratar Ndeye Rokhaya plutôt ñu wéyandi xibaaru biti réew yi waxandi diplomatie ak kii di Emmanuel Macron nga xamante ne dina amal ab tukkib nemmeeku ci ñetti dëkk ci Afrique di Cameroun Bénin ak Guinée-Bissau li ni mel dina ko amal ci ay bés yu ñu dëkkmal moom Emmanuel Macron dina ànd ak ministre des affaires étrangères des armées et des relations extérieures ak it secrétaire d'État chargé du développement li sabab li ni mooy rek gën a dëgëral diggante France ak dëkk Afrique yim nar a dem ca Cameroun lay doore li ni teg ci Bénin jeexale ko Guinée Bissau roxee ñu jeexalee xibaaru bi ci réew yi ca Côte d'Ivoire nga xamante ne caw li mu ngi bëgg a bëri Euh, ginnaaw bu ñu tegee loxo juróom-ñeent juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yi takki der ivoirien foofee euh, ca Mali euh, boobu ak léegi def na fukki fan ca Côte d'Ivoire nag kujje politique bi ak société civile bi commencé nañ di ci yéey yàb bi di sànni xeer l'autorité ivoirien yi ci anam bi ñuy gérer boobee affaire moom Kitana Koné di porte-parole ci parti Laurent Gbagbo bi di sàkku ab transparence gouvernance ak it euh, enquête parlementaire ci mbir bu ni mel euh, Rokhaya li moo fi fësoon ci xibaaru bi biti réew yi euh, di leen jaajëfal bu baax. di la jaajëfal yow tamit ab Absatou Dieng mu nekkoon ponk bi nga xamante ne rek moo daal di buural suñ jotaay xibaar yi digg bëccëg ni ki tey ci aljuma ji jaajëfal auditeurs yi nga xamante ne nii rek ñoo fare woon ci teewlu bi jaajëfal Ali Ibrahim Ka bi fare woon rek ci li nga xamante ni moo di xarale gi waxukaay gi Rokhaya Sall jërë ngeen jëf.